يا همة الشيخ اهضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر سورة الطلاق مدينة لواتش من ngi nekk أفكير saar ak fukki laay نيوني ci yenn wax yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci la wàcc wala boog xitaab bi la jëmale ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ne yonent ci moom la wàcc xafsatu doomi sayyiduna Umar moom la yonent fase loolu tiis lool ci Umar manganan amar Omar day ak wa keur Omar re nañ ndax yonent yalla Muhammad bu gisoon ci ñom aw yiw wala aw jam du fase sen dom ña wax lola ñu ne Jibril ñew nako fak fekk booba bum jege benn jigéen ci ay jigéenam lu mooy sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Aïcha moom yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam daan na nekk ak moom ci mbàjji Jibril ñëw di wàcc foofa bi maanaam yonent bi ay soxnaam kum ci jegewaan du caageen Jibril dana wàcc ci moom fekk mi ngo jege kooku ba mu des sayyidatuna Aïcha moom rek mooy ko xamante ne mën naa bokk ak yonent bi mel na mbàjj te du tee jibril ñëw jibril ñëw fekk bokkoon na moom ci ñi daan gis jibril moom sayyidatuna Aïcha yeneen saxaaba yi it am na ci ñoo xam ne daan nañ gis yonent bi saaw salaam ñu ne ñi daan gis jibril ñëpp ci jamono yonent bi saaw salaam gannaaw ga balaa ñooy faatu silmaxa nañ ba mu des sayidatuna aïcha amma xatta sayidatuna aïcha moom balaa muy faatu moom it ndax bokk na ci ñi gis jibril abdullah ibn abbas bokkoon na ci ñi daan gis jibril silmaxa balaa muy faatu ak lenn ci saabaam sayidatuna aïcha nag bi mu gisee jibril mu ñaw daf na ko yaa jibrilu qul li rabbika ya'muru nabiya sallallahu alayhi wa sallam bi istirjaa'i xafsa jibril soo demee nga wax sa borom ne ko mu digal ab mu fayle xafsatu jibril dem dellu si ne inna rabbaka ya'muruka bi istirjaa'i xafsa bintu amrin fa innaha qawaamatun wa min nisaa'ika fil janna jibril delusi, si ne ko sa borom nee na nga fay la xafsa ndax moom ci sa soxna yi la bokk ci aljanna te woorkat la jullikat la ah kooku daay mbiram leer la moo tax jigéen ñépp buñ gisee an sayidatuna aïcha dañ daan jog taxaw màggal ko ndara xabsatu mu wax mu laaj ko ko bés na ko waa yow lu tax li jigéen ñiy def mënoo koo def ñëpp danañuy jóg di ma tóojal ba mu des la yow mu ne ko ah, luy war a tax ma tóojal la luy tax bu màggal la ànd ak ne yow d'accord yaay doomi Abubakar ne Siddiq waaye mayit may doomu Omar te ñun ñaar ñëpp ñoo bokk di soxna yonent yàlla muhammad salawaatullaahi wasalaamu aley ñëpp bokk ci ngiit gi kon lu ma lay lu ma lay màggalee mu ko wax nga dëgg de waaye nag bala yonent fasee man maay ka yónnee ci yàlla pour ñu fayla la ah mu xam ne nag am na garab ci kawam moom it mu commencé di def li ay wujjam di def suñ jógatee rek moom mu jóg loolu ñëw na itam ci qadiya bi nga xamante ne mi ngay ñëw ca saar wale looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fayle ko la taxoon fase ko loolu moom mi ngi ñëw ci saar wala muy yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrim yaa ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi bi ida tallaqtum ndem na mu ngeen fase an nisaa a jigéen ñi ngeen leen bëggee fase fa talliquhunna na ngeen leen fase li iddatihinna ci seenu cedde na leen fase ci cet goo xamante ne laalu leen leen ca loolu nag su fekkee ni nga xamante ne laaya ji waxee na ko kon abdullah ibn abbas moom la wax ak joxañ kàddu gi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo fase woon soxnaam fekk mi ngi yor mi ngi gis mbaax yalla ne deedet waaya man na nekkeetu umoom ndax tombe na li walaf di tuddee tombe waral haay gaaf comme sayidatuna xafsa ñi ngi ko fase abdullah ibne abbas itam fase ci foo xamante ne du jamonoy fase laay ñëw wàcc ci yëpp rek pachem bidaa mi nga xamante ne am na ca ni xam ne lool duwut lu jaadu yonentu saaw sallam mer ca lool daal ne ko déedéet téye ko ba mu set su setee gisaat mbaax setaat gisaat mbaax boo ko bëggee wàcc totalement nga wàcc wala téye ko ba mu set set goo xam ne du set goo ko laal bu ko defee nag soo ko bëggee wàcc nga soog koo wacc waaw yenentu ne ko tumsikuha hatta taxiid wa tatahhar taharatan ma massaha ma massastaha fiha fa tutliquha waaxidatan wa taqsidu rajaa kon jigéen bu fekkente ne da koy fase bàyyi ko ba mu set set goo xam ne laaloo ko ca nga fase ko te jublu ca fayle ko lañ ca sopp nag mooy nga teewal yaari seede ci ne yow yaa ngi nii di ko fase waaye liñ ci jublu mooy yar ko dang ko koo bëgg a fayla ji ndaw la tumuranke ci jamono li xew mooy mer fase mhm. fase benn fase te jiblu ca fayle bu boobaa bu fekkente ne dem na ba fase ma nekk fase moo xamante ne jibluwuñ ca ko kon fase ma fasem bàyyi ma bàyyi na lay doon buñ ko bëggee jëlaat dañ koy takkaat bu fekkente ne jigéen àgg nag ci ñu fase ko ñetti yoon dootul dagan ci jëkkëram mu takkaat ko ba tamoo amaatee jëkkër ci étape yooyu le bu ko defee moom mu suuf caa mën a jot fa talliquhunna na ngeen leen fasele iddatihinna ci seenu cet wa ahsu te ngeen takk al iddata pasema al iddata maanaa ki limab ay bésam de limab ay iddaam te mooy fase leen ko fexe fayle ko balaa yi idda ja di jeex wattaqu te ngeen ragal laaha yàlla rabbakum kii seen borom topp leen ko lum leen digal ngeen def lum leen ngeen ba laa tuxrijuhunna bu leen leen génnee min buyootihinna ci seeni néeg seeni kër buñ fa génn wala yaxruj na buñ génn ak seen bopp illaa an yaatiina lu mooy bu dañoo dikkee bi faahishatin ci njaaloo mubayyinatin gu daaji bir te ña ko tekkee njaaloo am na ñoo xam ne badaatul kalaami lañ ko jàppe mooy wax ju ñaaw bu fekkente ne moom ak goro ya dañoo continuer rek dégg nga maam di wax wax yu ñaawa ñaaw am na ñoo xam ne noonu lañ ko gise maanaa e, naka ci yeneen riwaaya nga xam ne illa an yu illa an yufaaxisha lu mooy muy wax wax ju ñaaw aleykum ci yéen kon bu boobaa ñu génnee ko bu boobaa moo rotal ak waaye dafa war a toog ci néegam am na ca xàq di jot lam daan jot lu moy nag maanaa luy wane ne fayle nañ ko بفاعشة تنياو تيف مبينة بداج فس بوبابا ورنين كو مانا جيني فرتخا والكمام جتن لكم فيرين كون جالو وتلك أتيو نتدو حدود الله ميدايت حدود الله ميدايت لي الله ومن يتعدى كيف كو جاغتي حدود الله دايت لي الله فقر ظلما نكور نتوغنا نفسه بوبم دي نخكت ماغي غارال بوبم jëmee ko ci mbugalum yàlla de laa tadri xamula yow aji soxna la laaha ndaxte la yàlla yuxdisu dana mu sos baada zalika ginnaaw fase gugule amran meneen mbir te mooy fayle kon nag yéeneel fayle rek bu la samer yóbbu ba nga jàpp ne yëf yi moom sotti na jeex na dootu dootu leen dootu dootul yow ak moom yéeneel fayle rek bu ko defee nag yàlla mën naa defaat ak cofeel seen diggante idaa ida balax na dem jot na jot nañu ñoom jigéen ña ajalahun na seen dig te mooy buñ demee ba jege seen digub maanaa seen diirub idda fa am sikuhun na na ngeen leen téye am sikuhun na na ngeen leen fayle bi maarufin ci njëkk te mooy bu leen ci jublu lor de aw faariquhunna wala ngeen teqalikoog ñoom bi maaroofin ci njëkk wala ngeen bàyyi leen ñu ànd ak seen sago waaye bu leen leen fayle ngir lor leen wa ashidu te ngeen seede seedeloo zaway adlin ñaar ñu di way maandu minkum ci yéen de ci ne da ngeen wala da ngeen koy dangeen di teqalikoog ñoom boo bëggee fase utal ñaar ñu maandu nga ne leen kii de koy fase waaye dama ko dama ko bëgg a fayle wala boog dootul maag moom ak lu mën a xew ñaari seede ñoom suñ leen taxawalaatee ñu seede waaye ñu bare bari ñaareel suñ leen wooyee ngir seede lu mel ñoom dañuy lank ba tëdd ci suuf ah seedeew xay la wa aqimu te ngeen jubal ash-shahadata seede ga lillaay ngir yàlla bu leen ko def ngir ki nga xam ne moom moom la ñuy seede ci kawam wala ki nga xam ne moom la ñuy seedeel pas-pasub sëy pas-pas la goo xamante ne dafa ànd ak can ak i kilifa ak i seede seede ñëwut ci maanaam seede ci sëy mom ñëwut ci alquran waye nak sédé ci passé mom ñëw na ci alquran ne wa ashhidu zaway adlin minkum passé da fay sëy bo xamantene dañ ca mana banqaas la ci sëy motax ma nga xamantene alquran yaxal na ay seede ci fase ci lañu birliku ne kon ndekee takkuk sëy itam dafa war a am seede sëy ci shariatu yàlla def ko gërëm lool moo tax faaw jëkkër am ak soxna joo soxna soo xamante ne kenn newu ca genn ak bu ajuwul ca moom bu ko defee itam xedda dana am waaye pas-pas dana am can dana am ñaari seede lu mu néew néew dana am juróom yi bu fekkee daje nañ kooku pas-pasab maanaam pas-pasab shariatu la yàlla ne wa aqimu te ngeen jubal ashahadata seede ga ngir yàlla zalikum loolu yoo axadu leen di waaree bii ci moom man kaana képp ku nekk yoo axadu def na waar bii ci moom man kaana képp ku nekk yuminu di gëm billaahi yàlla wal yawmi ak bés al bu mu jëbade ki gëm yàlla te gëm bés penci kooku soo ko waaree ci lu ni mel dana ko jariñoo wa man yattaqi képp ku ragal laa yàlla yajaal dana mu def lawoo ko maxrajan génnuwaay wa yarzuquhu te dana wërsëgal ko min haysu laa yaxtasibu ci foo xamante ne fu mu foogewut la yonent ne ana kan mooy war dem ca abdullahi ibn abbas ne ko yab na abbas yab na abbas yab na abbas ittaqillah in lam tattaqillaha lam ajid laka maxrajan aw kama qal ay Ibn abbas ragalal yalla ragalal yalla ragalal yalla bo ragalut yalla man aw ma sa gennu way aw ma sa gennu way lam ca jublu moy na fay la soxnam bem set bu koy bayyi sokko bayyi aha ko ragal yalla yàlla defal la génnuwaay wërsëgal la foo ko fogeewut loolu itam am na ñu wax ne mi ngi wàcc ci Awf ibnu Malik Malik ak soxnaam dañoo nekk ay mag seen doom yéeféer yi jàpp leen jàpp ko ñu jàq ci lool ñëw ci yonent yàlla muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi ne ko yaa rasulallah ñun de suñu doom dañ ko jàpp yéeféer yaa ko jàpp te kat moom rek lañu yor loo ñuy digal yonent salaam ne ngeen ragal yàlla te muñ te topp ay ndigalam tey bëri lu ngeen di wax laa xawla wala quwwata illa billahi aliyi al a ñoomit ñu ñëw bari lool lu ñuy wax laa xawla la quwata illa billahi al aliyi al azim sim tuuti rek seen doom ja fëgg bunt ba fekk ma nga màngaale lu toll ci téeméeri giléem ñu ne ko li num demee mu ne man kat yéeféer dañoo sàggan ma jóg rek màngaale seen gélém yi indiwale ko yàlla ne mungo nga ku ragal yàlla yàlla hubbil la bunt bakkanam lañ bëggoon a jël jot na ci ñoom téeméeri gélém am ngoog wa man yattaqi képp ko ragal na mu laaxa yàlla yajal dana def loo ñeel ko maxrajan génn waaye ci njàqare àdduna ak njàqare àllaaxira wa yarzuqu te dana mu wërsëgal ko min haysu laa yaxtasibu ci foo xam ne du ko foge de ndax foogu toon ne dana amee foofu noonu wërsëg wa man yatawakkal képp ku wéedu alallaahi waral yàlla fa huwa yàlla xasbuhu aji doy la ko de inna laa naka yàlla aji jotal si la mu mbiram wala baaligu amrihi moo aji jotali mbiram de faqad ka faqad jaala def na mu laaw yàlla qadaran li kulli shay ñeel lépp lëf de Wallahi, i jigéen ñi nga xamne ya isna dañu naagu min ma'id ci mbërëg min min nisaikum ci seen jigen de te moy jigen ñi nga xamne ay magar lañ ñum pot ñom naka lañuy jappé jàppee idda in irtabtum dem sik sàkka ci seen idda fa